li sengoor wax ci Tiwaawan waru ko wax dal ci kaw Senghor lu nekk mu yàq ko pour wax la nii li Maodo daan wax ni diine ñaar a ko yenu bu fa nekkatul diine nekku fa mooy teggin ak kersa teggin ak kersa ku nga xam ni mënuloo supporter Senghor taxaw wax ni fàttali sëriñ Babacar bi amal na ma njëriñ ba mu jaral la taal xare moo lay won ni réew mi nañu def très attention إذا قالت حذامي فصدقوها كوكو وخون إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي su ko defee nag li ci nekk yëpp mi ngi ci pas-pas li ci nekk yëpp mi ngi ci pas-pas su ko defee ci biir loolu dafa am lu nga xam ni dafa dellu ci li góor gi daan wax ni nit li nga koy rusal kenn bañ ko gis su ne def ko yóbbu ca marché ba moo tooñ boppam loolu rekk mooy li nga xam ne moo ci ne mais lu xew lu xew nun gisuñu ko bu ko gisoon daje bi tey du am yàlla xam na ko ba tax na ko nag am na lu nga xam ni gor rus na ko am na lu nga xam ni gor rus na ko ba tax na kon nag yi ci des yëpp yëpp yépp font ci des yëpp font rek bu dee foo dégg noon rekk xëcc indi ah foo dégg soppi menacé loolu na mu tudd amul tur amul tur amul tur amul tur amul tur hmm. gis nañ ko de gis nañ ko de tooñ de tabarakallahu ah moom farata la tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla farata ¿Mm? ¿Eh? la de farata la de yàlla dogal ñaata waxtu nga war a am léegi quatre heures dix waaw gis nga ko Ah, ah? waaw ah. kii eh, biig lan ko barkeloo ci yonent bi ajibu daaiya al mawla أجيبوا داعي المولى أجيبوا أي بيت ينيولا أجيبوا داعي المولى أجيبوا فإن الله خالقكم يجيب أجيبوا داعي المولى أجيبوا فإن الله خالقكم يجيب يجيب إذا دعوتم أو شكوتم سميع يستجاب ويستجيب خلقتم قبل من طين وصرتم ملوك الأرض في الدنيا أجيب ومن لم يشكر المولى كطين وإنسان فمولاه المجيب أجاب الأنبياء لكم كما قد أجاب الرسل فهو المستجيب وقال خذوا لزينتكم مقاما يجوب إليه منكم من يجوب وجود لا يشابهه وجود وجود الله خلده الوجوب وجود فوق ما للجود كما وكيفا وهو رزاق نجيم وملككم جوازا كل شيء فأمسى الكل عن كرم ينوب وذاك الحب أعجب ما اهتديتم به للحق فالعجب العجيب يحب لمن يحب بلا حساب وذاك أحق ما احتسب الحسيب حياة في الحقيقة يرتضيها لمحبوب يحببه الحبيب وكل سعادة في الحب ذكرى وأسعد ذكريات لا تغيب ومن لم يشق فيها فهو طفل وأشقاهم لأسعدهم طبيب ورضوان من المولى نصيب وخير كله هذا النصيب تقربكم له فضل عظيم وربكم المجيب هو القريب تخلقكم بأخلاق حواها فأطيب ما تطيب به القلوب تطيب به القلوب خلال أمن وكل قلوبكم أبدا تطيب وفي الآداب إحسان وفيها من الأخلاق ما اعترف الأديب إمام الأنبياء ومجتباهم وأي إمامهم مدح الرقيب بسدرة منتهى وظلال مأوى رأى أن القريب هو الغريب وفي بصر الرسول سنا لغيب وفيه من السنا علنا ضروب جلال الله من شرف لعبد غدا شرفا يثاب لمن يثيب وأجمل من يخاطب ضمن وحي ولولا الوحي سيطرت الذنوب وأشجع من تقلد يوم زحف بسيف حين تشتعل الحروب وأكرمهم لضيف أو لجار فقيرا كان أو شهما ينيب وأبقاهم يمينا للبرايا ويمنا فيهما نشأ الشعوب ومن يؤمن ففي الإيمان حلم ومن يكفر فكفران وحوب فإن محمدا في كل قرن رسول لا يغيب ولا يخيب عليه من المهيمن يا لرب صلاة كلها مرعا خضيب صلاة يستفيد الناس منها كخير لا تشق به الجيوب tabarkalla tabarkalla barkeelu ci tabarkalla ci yonent bi euh, euh, soo gisee ñu di leen nettali yi jaaxir te du doomu daara ak li mu def ci daara moo di woon leen ni tiitër jeex na waaw tiitër jeex na tiitëru pour lan foo ko teg dégloo ko fen ba moo tax tiitër jeex na waaw li ci des mooy xam sa bopp tabarkalla jàpp sa kilifa tabarkal la gannaaw ba nga jàppee sa borom tabarkal la barkeelu ci yonent bi tabarkal la bu dara xewoon lii du xew bu dara xewoon lii du xew mel ni kon nag seen xol moo leen di jëriñ jëkk seen kurus seen xol moo leen di jëriñ jëkk seen kurus Cheikh El Hadji Omar radiallahu taala anhu nee na na toppatoo buumu xol yi jëkk buumu kurus yi ah toppatoo buumu xol yi jëkk buumu kurus yi na ngeen toppatoo buumu xol yi jëkk buumu kurus yi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin kenn xamul tabaarakallaahu li nuy nëbbu di ko wax ci seen wàll lu nu bëgg sax di ko wax ci pénc te yépp dafa am borom borom bi mooy Sëriñ Babacar Si waaw dafa am borom te borom bi mooy Serigne Babacar Sy tabarkalla tabarkalla tabarkalla ba tax na kon nag yi ci des yépp foola rek dama am benn maam xaaju saa yu du nooru taal benn bés mu ni ma seen baay foyewul nit ñi de waaw foyewul nit ñi de foyewul boppam foyewul nit ñi foyewul boppam foyewul nit ñi tabarkalla ba tax na kon nag yéen itam loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk euh,